waaw jërëjëf may leen ñu nuyu ñi leen di topp di leen ndokkeel ci weeru tedd bi di ñaan yàlla tamit yàlla eggale nañu ci bis bi ci jàmm ak salaam ñu defe ko ni ko borom bëggee woon waaw ni ñu ni nga ko xamee rek lii ndajale moo xamante ni ñetti at yu nekk lañ koy amal mu jëm ci wàllu ngirum sufiyanke di li nga xam ne moom la Serigne Touba doon dund di ci yar taalibe yi Euh, ren nag yàlla dogal mu dajeek euh, mbas mi euh, ci àdduna bi yëpp Sénégal mucc ci moom it ba tax na ndaje muy ñu di ko def ci anam boo xam ne dafay wuuteek anam yi ñu ko daa defee di jëfandikoo jumtukaay yu xarale yi tem tomb bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane nag mu ngi jëm ci xidma xidma mooy def te yàlla tax ngir saw askan mu doon loo xamante ni donte Serigne Touba indiwu ko fii waaye gën na ko jox gëdd ndax da ko dugal ci aw yarinam euh, euh, euh, xidma mook def lu baax nekk ay jumtukaay ngir ngir saafara li juddoo ci mbas mi ci ay loraanga ci anam yëpp boroom xam-xam ñi ngi wax ne fu mu nekk nii incha allah bu mbas mi jàllee ay loraanga yu bare bari ci fànn yëpp dana ci feeñ dundin wi dana am ak soppeeku wàllu koom mi dana ci jeexital wàllu dundinu diine ji yëg ak wàllu aada ak cosaan yu yëpp dana ci jeexital su ko defee thème boobu nag moom lañ indi tey ren di ko weccante xalaat ak i borom xam-xam yu mag a mag yu jóge ci biir réew mi ak ci bitim réew euh, lu toll ci fukki réew ak ñaar boo ci doolee Sénégal muy fukki réew ak ñett yoo xam ne ñooy séq euh, jotaay bi gis ngeen ko nii fu mu nekk nii tàmbali nañ ko Euh, mën nañoo tudd ci réew yooyu France Angleterre Belgique mën nañ cee tudd tamit réewi arab yu bare ay Maroc Tunisie euh, Jordanie Irak Syrie Mauritanie ak yeneen yu dul yooyu ak senegal réew yu bare bare daal ñoo ko seq ak Arabie Saoudite yooyu nag ñoo ci weccante xalaat ngir euh, xidma bi naka lañ ko mën a jëfandikoo ngir eh, saafara ko jafe-jafe yi nga xam ne ci la àdduna bi toll ci senegal bokk ci biir àdduna boobu moom di ko jànkonteel dana nekk bu soobee yàlla ñaari fan tey ak suba tey eh, lépp jotaay yëpp bokk ko boolee juróom-benn jotaay lay doon ci biir juróom-benn jotaay yooyu dana am ñaar fukki nit ñoo xamante ni danañ ci jël kàddu yu bokkut ak cérémonie biñ doon ubbiyee ak cérémonie bi ñuy tëjee Euh, ku ñu jox kàddu ku nekk ci ñi nga xamante ni kilifa yi nga xam ne ni dañoo bokk ci waxtaan wi ñooñu kenn ku ne fukki minute lañ koy jox kon tey dana am ñeenti jotaay euh, yoo xam ne bokkut ak ubbite gi ubbite gi gis ngeen ko euh, sëñ Ahmed Badawi mi jiite raw du Rayaaxin jël na fi kàddu sëñ Abdou Lahat mi jiite wàllu jokko bi ci comité d'organisation bi jël na fi kàddu ak discours bi nga xamante ni inaugural la boobu lañ doon ubbee jotaay bi léegi nag gis nga ko ne fu mu ne docteur yi ñi nekk Dubaay ñi nekk feneen ñoo toll ci di jël kàddu nii euh, bu subaa incha allah noonu la ñuy yendoo fii tey ba ngoon suba gi ak ak ngoon gi yëpp ñeenti jotaay euh, su ko defee ñu bari ñu ci jël kàddu bu subaa bu ci yàlla àndee suba gi xam nga àjjuma dafay xat waaye bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee danañ tàmbaliwaat liggéey bi mu am ñaari jotaay bu ñaari jotaay yooyu jeexee Euh, ñu euh, euh, def li ñu wax cérémonie de clôture mooy ndaje mi nga xam ne moo koy tëj tey ci njiital ki yor kàddu ko Cheikh Mouhamadou Mountakha muy Serigne Bachirou Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir ngir ñu def cérémonie tëjte bi ak li ñu tënkee ci waxtaan wi yëpp nga xam ne buñ ci jógee incha allah danañ ko jébbal kilifa yi te ki ci jiitu mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké su ko defee àdduna bépp tamit ñi nga xam ne ñoo jël dogal yi muy décideurs yi. kilifay politique yi ak waa àdduna bépp expérience bi nga xamante ni Touba am na ko ci wàllu euh, xeex mbas mi te ndax gis nga euh, na saxalut sunu dundiinu diine waaye nag dañu jël ay matuwaay te matuwaay yooyu kilifa gi ci boppam moo ci jiitu mooy Cheikh Mamadou Mountakha gis ngeen ko lim ci def ci alalam gis ngeen ko ni muy taxawoo ci wàllu takk masque ak yeneen yu dul yooyu su ko defee yooyu expérience la boo xamante ni ba fu mu nekk nii sax gis ngeen Touba mbas mi wàcc na fi lool donte réew mépp sax wàcc na waaye Touba moom teel na fee wàcc su ko defee nag yooyu it bëgg nañ incha allah eh, liñ ci mën a jëfandikoo fii ci Sénégal ak ci biti Sénégal mu doon loo xam ne day tukkee Touba te eh, tëdd ci njàngalem Serigne Touba.